Public. Je voudrais tout d'abord euh, remercier l'ensemble du peuple sénégalais qui s'est massivement mobilisé pour nous rejoindre dans cette journée de Setsetal, qui est une journée d'investissement humain communautaire, allant dans le sens d'anticiper les inondations parce que c'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là se tient. En tout cas, l'ouverture de ce cycle que nous voulons long tout au long, tout au cours de notre mandat. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les maîtres d'œuvre de cette euh, journée, à savoir les ministres de l'Environnement et de la Transition écologique, le ministre maître d'œuvre en chef de l'assainissement et de l'hydraulique, et ses autres homologues qui, ensemble, ont travaillé pour la réussite de cette journée. La mobilisation que j'ai vue partout au Sénégal est exceptionnelle et rend compte chez le peuple sénégalais de leur adhésion à notre démarche de gouvernance basée sur la co-construction. On a appelé au jubanti, au redressement. Cela veut dire Nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. éviter de salir et quand nous constatons que ces salles doivent systématiquement penser à nettoyer. Il y va de notre santé, il y va de notre bien-être. Je voudrais aussi remercier les écoles et les responsables de ces écoles qui ont mobilisé massivement les enfants pour qu'ils sortent. Et le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lesquels il est, il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau et au regard des inondations et de leurs conséquences. Mais à travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais partout où qu'ils soient, qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le, le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir ou qui, celui qui nettoie après avoir sali. Je voudrais enfin continuer à appeler les Sénégalais à ne pas faire de cette journée une journée circonstancielle. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collectif. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent. Et bonne journée de cet àll suñu di sant ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal askanu Sénégal mi nga xamante ne. génn nañu ci mbooloo mu takku ci bés bi bokk ak ñun bésub set setal bii nga xamante ne ku jóg rek xamal ne sa bopp nga jógal waaye ku jóg tamit xamal ne sa réew nga jógal amul lenn lu gën a noble setal fi nga xamante ne mooy sa dëkkuwaay waaye setal fi nga xamante ne mooy sa réew ak foo mënti nekk nag ak loo mënti def di jaajëfal balaa may gën a sori ministre yi nga xamante ne ñoo doxal organisation bi ba ci bés bi ñu toll tey muy principalement ministre assainissement ak hydraulique ak ministre environnement ak transition écologique ak yëpp bépp ministère boo xamante ne na wu ci ndax ci solidarité gouvernementale la ñu nekk ci collégialité la ñu nekk te gouvernement bi yëpp laay félicité aw premier titre le premier ministre mi nga xamante ne mooy coordonner l'action de ce gouvernement la kii en ce même mu ngi ci beneen site. di def la même chose bi nga xamante ne moom lay def maanaam impliqué wu ci setal suñu réew may jaajëfal rek ñëpp ñi nga xamante ne ay école lañu ay responsable école lañ ñiy yar xele yi ci set ak setal ba tax ci bés bii ñu woo leen génn leen massivement pour ñu bokk ak ñun bésub set setal bi nga xamante ne warul doon rek benn bés ci bés yi waaye suñu yéene mooy mu nekk loo xamante ne dañoo ko dugal ci suñu doxalin ak ci suñu jëfinu bés bu ne yéene gouvernement bi ak yéene président de la république bii ma doon mooy weer wu nekk ñu am bés bu mel nii ba ñépp ñi nga xamante ne ay tuut tànk lañu bu ñu màggee màggee xam de Sénégal weer bu nekk ñépp dañuy jóg ci kër yi ci koñ yi ci communes yi ak fépp ci biir réew mi di setal parce que réew mi bu saltee ñun ñoo ko saltel bu setee ñun ñoo ko setal kon suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bañ a setal bañ a saltel waaye suñu responsabilité ñun ñëpp mooy bu salte ñu set ñu ñu setal ba mu set ndax suñu wergu yaram daf ci am loo xamante ne ci loolu lay tukkee ñu mën ko garantir suñu bopp lii nag defi bi mooy lan mooy naka lañuy def ba maanaam weer wu ne ñu mën ko amee te loolu lay woo ñëpp ndax ci jubante lañu woote te jubante bii du doon mbirum gouvernement bi du doon mbirum président de la république day tàmbale ci jubal ba duñu ñu soxlaa jubanti loo xamante ne jub na ba pare ci suñu comportement au quotidien waaye day tam am solo tamit ci bu ñu dee jubanti bépp sénégalais foo mënti nekk nga xam ne lii jubul yow sa responsabilité la nga jubanti balaa nga ciy xaar benn autorité parce que gouvernement bi mënul nekk fépp waaye lu ñu mën mooy wane yoon wi wax sénégalais yi fii la ñu bëgg a jëm ak yéen di ci diisoo ak yenn saasu ne parce que xam nañu responsabilité bi ñu ci am responsabilité boobu ci yéen la tukkee ndax seen responsabilité ngeen jël jéebal ñu ko te moom la ñuy doxal te gëm nañu ne doo leen ñu jiital ba pare deltu gannaaw di ñu seetaan waaye di ci jàpp bu baax a baax ndax ñoo bokk Sénégal ñoo bokk lépp asalaamaaleykum wa rahmatullah